Talen ak jàmm mbokk internet yi safo di setan Buzz MTV cyant ak ngeureum ñeen ci top bi ngeen di top sen bi ñu daal di dikkaat ci jangatu bus bi president Macky Sall mbir mi nga xamne nak bëggoon amal lu musta am sim rew waaye conseil constitutionnel bayu ko ci dinañ ci dik ak ay révélation yu ama am solo te pertinente comme niñ koy faral di waye si fatali dimanche le campagne bi di dor comme eh, ñi nga xamne ñoo di candidat yi war nañu commencer préparer si campagne yi ngir nak woné seeni programme ñi nga xamne bëgg nañ leena a ñu daal leen voteel lolu dimanche day commencé dinaw jeex vendredi bu minuit jotee mu nek nak campagne bo xamne nar na gatt lool waye nak dafa laaj ay sacrifice ndax mbiri nim ni la motax mu mel ni mu mel mom président Macky Sall man nañ né li lepp dal mom moko waral jamono bi waron na fekk élection yi e jeex bañ jàll lenen wayé gal gal yi nga xamné dal tégon nako bëggona duggal ap dugal loi fexé ba duggal ko ba tax élection yi e retard loolu dinañ ci dikki ak ay jangat yu ama am solo té pertinent comme niñ koy faral di euh waaw situation ya bi di de da ngay gis né euh dang ci dé joy di ci dé c'est-à-dire. dañ ci si dee amee nakar di see amee euh, mbégte parce que euh, ñun mënuñu dee wax lu dee bees quoi parce que nag li fi dee wax lépp waxoon nañ ko dañ dee fàttali rek voilà ak di dee gën a insister si yenn point yi pour voilà ki dee xaw a ñàkk niveau gën a dee comprendre parce que ñun dañ dee waxoon ne Macky Sall lii mu dee bëgg a def mënu dee nekk mbiri dof la mënu dee nekk. te kenn mënu ko dee expliquer nit kenn rek nga ko dee mën a expliquer muy ab dof mais nit moom jërul nga ko dee jéem a expliquer parce que yëfi dof la yow li dee war a def lépp ñu def ko audi parrainage jaar fi dee war a jaar ba conseil constitutionnel validé ñi dee war a dem ci élection yi nga dee toog ban dee wax ne minuit la campagne de démarré nga génn quatorze heures ne la nga élection yi loolu lan la mën a nekkee parce que damay amee ñaar ñu dee werante fële amee ne ku dee jiiñ morom jëleel nangama nangam ko nag damay annulé élection yi xoolal wax yooyu jàpp ne voilà man nga fi dee fexe ba dee toogaat voilà say député daal dee hôtel ab loi boo xam ne daal dee yëpp fii ba 15 décembre yokkaat un an boobu dañ na ko lii mënu dee nekk réew kenn du ko dee toog ci ay samay député defal nañ ma léeg ay modifié naa leeg ay def naa leeg am na ñaar ñu dee xuloo feek yooyu mënu dee tax nga dee toog ci réew réew lenn dong kot dong moo fa dee toog loolu nit mooy askan ba askan ba askan ba mu dee defi tappaleem defaati tappaleem tappaleem gaa dem conseil conseil jël décision dox boobu sànni fële wax ak moom si njëkk ak teraanga mais ab dof xamul wax ak moom si njëkk ak teraanga parce que dof moom dof la olof yi ñoo dee wax ne buur nit bi bu xamul buur saay na nga ne ko buur dee na parce que koose koose ba mu ko waxee ful la wax ko li mu ko dee wax ne ko sa mandat la deux jeex na gasi jeex na utal meilleur délai nga dee gis dof yi ñëwati naan non mais bële mooy xëmma lana lana lan mais bële kon mooy moo dee nekk bis bi dee gën kon dañ dee xaar xëmma trois mois petit prata daal di ordre seenub dialogue dialogue waxoon naa ne loolu mënu dee nekk dialogue parce que dialogue da dee nekk dialogue mais organiser ay kacapaa ñoo xam ne si sax li nga dee tuddee dialogue su jotee ñoom nga dee oo ñu dee ñëw te ñoom seen position ñëpp xam na ko ay Ahmed Khalifa Niass ak ay xëmma ñaari grand sëriñ ak ay Cheikh Tidiane Gadio ay nday teex ak ñoom ñu daal di ñëw ne ne waaw ab jarog loolu moo la jarog commerce ñooñu moom gëmun dara ñooñu gëmun dara dañ leen dee o oh, ngeen dee waxaale nga fay leen ñu daal di ñëw defal li nga dee bëgg après ñu dee dem toog soo ñoon ñëw ko ci waxoon naa la lii nga dee engagé yaa dee nekk responsable bi parce que ñee moom dañ leen dee fay rek après ñu dee dem toog léegi ana jarog ba ba nga jógee sa 15 décembre def say tappale organiser say katapaa daal keneen tuddee dialogue conséquence la la lay def dafa résister dialogue bi parce que da ngay da ngay caaxaan da ngay da ngay caaxaan résister dialogue bi sànni fële mieux délai ba mu la dee waxoon euh, ba yoon la dee jàppal date pour jox la cër gis na ne yow mérito woo cër bi moo lay tax tey mu dee décider jàppal la dere parce que xam na ne yow koo il faut mu jàppal la date. yow bu la waxee lim la day wax na la wutal le meilleur délai nan la nit mën a amee ay euh, gàmm le vingt cinq ne la diw sama xarit nga léegi nan dee xool bis bi dee gën ñu dee uti nag nga dee nag ba le vingt cinq passé nga dee doog a pour ñu dem uti nag xam nga loolu xalaatu dof la te waa APR doon def yëfi dof yëfi en même temps di indi ay article 36 patati woo naa leen ne bii ngeen dee indi. mënu dee nekk parce que article trente bala mu dee mën a ñëw da day fekk affaire yi dee jaar yoon ñu dee nekk euh, deuxième tour wala ñu dee fal nit ba nit kookee heure ba mu dee war a toog yow nga ko dee xaarandi mais kun dee falul noo dee toog di ko xaare ko dee xamu kañ la ñëw man nga dee toog di ko xaar loolu loolu xel nangu na ko nangu dee defoon yëpp boobu ba léegi caaxaan yéeg tappale yii yëpp conseil conseil heure su ngeen demee mu jël leen ne leen yéen a ngi dee caaxaan dem leen ci fulla bi parce que fulla bi jot na fulla bi jot na moo ne tax bu nit ñi dee wax ak yéen dee leen déglu ñun xeexoon Macky sàll jëmmi Macky Sall intéressé wuñu mais li ñu dee intéressé mooy jëfi doxam yii mu dee bëgg a def fekk ak kër mu bëgg a fu ne mu def fa bunt loolu lan dee bañ parce que xam na ne bunt yooyu yi mu fi bëgg installé ëllëg ku fi dee toog bunt bu la dee neex nga lay jaar kër gi dootu dee amati benn bunt lool la mag Sall di bëggoon def parce que ëllëg ku dee toog su la neexee nga dee dem ba dañ ne minute jékkuwoo affaire yi wala nga dee heure bu la neexee rek nga jaar ci benn buntu Macky Sall fexee fee génne fee waxoon naa leen décision bii ko ko suñu dee jël ñu man ko dee jël ak sànni fële utaal beneen décision bu xisee ba dee jàll ëllëg dana dee jàllaat jàllaat jàllaat jàllaat te du doon tuddee masu jógeeti yéen da ngeen dee xamul ñun jëmi Macky Sall bi intéressé ñu intéressé ñu ñun dëgg la dee xeex boobu ba léegi yéen ngi dee caaxaan pexe nga ba nga toogee ba léegi yaa ngi ci ay pexe dem nga ba ameetoo pexe waaye waay waay yi Macky yi xanaa li dee def nii moom moom moom voilà parce que heure bii war nañu lay fekk ñun ñu nekk suñu au oh là sensé position di lay regarder kañ la président beex bi dee war a toog voilà est-ce que ñoo ngi ko dee xaar ci lii di ko baax di ko fàttali na ko nag ah ñoo ngi lay xaar ci léegi lii heure bi loolu la ñu de woon a fekk mais ins bi yow yaa dee koo sa koo voilà ak sa dof moo ñu dee bàyyi situation bi ñu dee nekk ba léegi xamutoon fi ñu dee nekk waaye olof yi liñ dee wax rek baadoole moom baadoole rek la gor bu dee da dee sukk si ndab bala nga dee tee loxo mu dee jóg mais baadoole moom da nga dee tee loxo bi rek dam génnee sa ndab la nii conséquence la jëflante yow ñaaw na ci yow trop trop wallahi la asim rëfutul ci yow euh, c'est-à-dire Macky da dee ameetul choix parce que euh, conséquence na toroxal na ko wax naa moom ci façon boo xam ne si kenn du ko dee waxee boroom xel mais ab dof rek nga ko dee mën a waxee parce que ab dof rek nga dee mën a wax ne ko su dee xamoo buur saa ne man dee wax ne buur dee na noonu la dee waxee moom voilà léegi décision ba mu dee jëloon lan la dee indi lan la dee jariñ ñaata nit dee dee boobaak léegi ñaata ci alal moo dee yàqu ba mu jëlee décision boobee ne dee dàq élection yi te mi ngi nii mi ngi nii fekkee ay dialogue ak yi mooy yàq na yooyu sax dafa yàq baat yooyu ay dialogue ak yooyu parce que dialogue lu dee normal la mais Macky Sall tax na kenn bëggut euh, xam lan moo dee dialogue voilà parce que moom mi ngi organiser dialogue am tappale kii kii Union européenne ñoo ngi dee resté fan dee nekkoon ñoom moom seen fure lan dee amee organiser l'élection avant le deux waaw ëdd bi yëpp lànkal ko lim dee bëgg moo dee tax gi gàcce gi Macky Sall dee amee yàlla na si yàlla dee musal gor parce que xëlul ci gor ci baadoo rek la dee xaj addinaa ngi nii nag ki dee dugg xama ne yaa dee génn nguur gudul nguur yàlla da ngay jeex yàgg yàgg da ngay jeex Macky Sall jeexal nga jeexal nga yow mi dee war a ñëw nekk président jëral leçon ki lii dee dal Macky Sall da dee xam ne yow mii di dee bëgg a dugg ah yaa ngi dee bëgg a génn de su dee xam nga ko dana la dee dimbali nga mën a dee gouverner teg ko ci dëgg parce que Macky li ko dee gën a rey mooy ay dof ànd ak moom ak i conseil yu dof saare xaarim sàmb yi chef d'état da dee war di rey di dee tëj mu dee topp loolu rek di dee rey ko tëj ban dee wax na ko voilà minuit la campagne de demandé loolu la ko dee daal fi mu doon gaa yi ñi ci kasa bi ay téeméeri téeméeri nit taxaw tey nit yi taxaw ñuy sibile di génn prison nit ñi di leen dee gàttanu ak di leen dee ndokkeel di leen dee wax ne jàmbaar ngeen xam nga ne loolu loolu loolu lu lu touriste la parce que xam na ne kaso bii li la fi dee dugal mooy nga dee. amee beneen gis-gis bu dee bokkut gis-gisu Macky Sall mooy nga dee taxaw rest di dee gis dëgg di ko dee dénoncé Macky Sall jàpp ne waroo doo amee jàmm da nga dee war dugg ci kaso bi xoolal ñim dee dugal ci kaso nguuru Macky Sall gor yëpp jaar nañ ci kaso bi nit yu bari dee nañ ñenn ñi réer nañ ay policiers gi gendarme may yoo xam ne si voilà dañ dee réer lii ñaaw na ñaaw na mais nag baax na baax na dana la jox leçon ki dee nite ëllëg mais ki dee dof ba joxu ko leçon bu dee ñëw a dee Macky Sall ko dee dara parce que Macky Sall nii conséquence toroxalee ko nii waxee moom ci façon bii boobu ba léegi lu mu dee yëkkati conséquence sànni fële te ngir yàlla ah baax na bonne journée